tazawudu shubbaan téere bu yaatoo yaatu la boo xam ne moo gën a yaatu tazawudu sixaar ndax sixaar gone yee ko moomoon tazawudu shubbaan la sëñ bi jagleel waxambaane yi bismillah fii la tàmbalee bismillahi ci tudd tur yàlla lay tambalé samay wax rahmani yalla ki aji xewle xewul yu dijiya rahimi yalla ki aji xewle xewul yu sewiya Tambalé turu yalla dañ ko fonk lol ba yonent ya bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne seen biri am solo de len ko tambalé tur yalla ya wax ne sax luñu tambalé wul tur yalla ya du am barke mbaa barke ba day manqué kon nag lépp looy tàmbali rekk te du ak mooy na nga tàmbalee bismillah arrahman arrahim daa bokk ci turi yàlla yu màgg yi des na ko firee yàlla muy xéewal xéewal yu dijj yi ak xéewal yu sew yi ndax xéewal moom mën naa dijj mën naa sew sëriñ bi nag moom da koy ëpp firee arrahman yàlla muy xéewal ci àdduna ñëpp ñëpp nga xam ne ñi kay mooy sax da leen di xéewalaale arrahim nag mu féetale ko yërmaande àllaaxira ja ne ñi gëmul rek la yàlla yàlla na dolli tedd allahu yàlla taala kawe na moom yàlla ala sayidina sunu sang muhammadin turam muhammad wasallama te doli ko wolu tasliman doli wolu dafa julli ci yonte bi ne yalla yalla dolli teranga sunu sang sunu kilifa te moy muhammad nako yalla dolli teranga ak jamm mubarakul ibtida'i li luñu barkelu tabli la may modu intihai te luñu barkelu mat tabli bi yep yalla nako yalla def barke ba namu mate lepp di barke xaw naka daranu sàkku sa ndimbal yaa moo yenu yow ki aji dimbalee wa bi ka taj yow rek nasta yenu lanuy sàkku ndimbal sunu boroom yow kat yow rek mën dimbalee kon nag ci yow rek lanuy sàkku ndimbal yaquulu dana wax ajasul baraya gën jàlloot ci mbindeef yi al muftaqiru kay aji aajowoo ila ilahi jëm ci boroomam ba al ghani yi bay aji doylu al muqtadiri kay aji sarkatan muhammadun te mooy muhammad ibnu cheikh yi kay doomi sëriñam ba muhammadin muhammad waqiya yàlla na fegaleef ko fit daare ni ci yaari kër yi kulla nakadin wépp tiis nee na bi taalif daa yëg ci boppam ne daal mboolem li yàlla sàkk mooy ci gën a tële gën ce ñàkk amul dara waaye na yëg moom ñàkkul dara tëlewul dara ab lar la ab boo xam ne daal amul dara mënul dara waaye nag la ci xewal moy boromam mom nekul dara te teliwul dara mom nak muhammad muhammad la tuddu wajuram itam ci serignam tuddu muhammad ni ngi ñaan yalla fegal ko lepp luy tiss ci aduna ci alakhirah li wax moy xam dan ma ngi sant ak cant li man ñeel yalla mi nga xamne qad man xewlena bi tawhid ci xam xamu tawhid wal fiqh ak fiqh wat tasawuf ak tasawuf al mujidi kay aji rafetal boo jàngee al mu jiidi boo defee al ma jiidi nag mi kay kay ji tedd ñu tàmbalee sant yàlla mi nga xam ne moo nu xéewale ñetti xam-xam yi nga xam ne mooy xam-xami diine xam-xamu tawxiid te mooy jàngale nit ñi gëme ci lislaam ak xam-xamu fiq te mooy jàngale sharia maanaam lépp lu la digal noo koy defee ak lu la tere noo koy moytandikoo ak la nga sañ ak la nga sañul yépp fiq moo koy jàngale tasawuf nag mooy xam-xam bi jangale ihsan rafetal manam. lepp loy def yalla dong tax ma noppi tam nga sam ci teggini tax yalla gërëm la ci musalliyan mbir mu muy aji julli hal allazi ca ka nga xamne atana dikke nanu moy jox nanu al iman iman wal islam al islam wal ihsan al ihsan boo ko ngali al iman wal islaam ak wéy santaane yàlla ci ko suuf wal ihsaan ak rafetam mi ngi sant yàlla boroomam di julli ci yonante bi maanaam di ko ñaanal yàlla dolli ko teraanga moom mi nga xam ne moo nu andil diine ji nga xam ne mooy lislaam te lislaam nekk ñetti xaaj ca na ko addis ba indee ca ba jibril ko melaw nit ñëw laaj yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te yonante bi tontu ko ci addis boobee nga xam ne bu siiwa siiw la ca la ñu xame ne ñetti xaaj la muy al iman al islaam mooy gëm al islaam mooy wéyee santaane yàlla yi ci kaw suuf al ihsaan mooy rafetal maanaam jaam bi lépp lu muy wax ak lépp lu muy jëf yàlla rek tax te mu sàmm ci teggin ya nga xam ne mooy tax yàlla gërëm ko bu ko defee nag al iman bi nga njëkk a wax xam-xamu tawxiid moo koy jàngale al islam mi ci topp fiq moo koy jàngale al ihsaan mi ci mujj ak tasawufu moo koy jàngale sëñ bi sayidina mooy sunu sang muhammadin te mooy muhammad wal ali ak ñooña wa sahbi ak ay sahabaam fil xaali ci tey wal ma ali ak ëllëg sang bi muy ñaan yàlla dolli ko teraanga mooy muhammad yàlla ko yàlla dolli teraanga ak mbokkam yëgamoon ak sahabaam ya ba faawu faawu haza jàppal lii wa atlubu danaa sàkku minal mannaani ci xéewalikat ba nadman aw way bihi bopp nekk na ci moom saxaadatu shubbaani texeg waxambaane ya gannaaw sant yàlla julli ci yonte bi daal damay ñaan saa boroom mu may ma ma taalif téere boo xam ne waxambaane yi danañ ci amee texe nadman aw way murattaban wu di wuñ tofsale ala abwaabin ci ay buntu salaasat ñu di yett tufdi wee danañu àggale illa sawa bi jëm ci jub way li woo xam ne daa koo bëgg a tofsalee ci kaw ñetti bunt ñi nga xam ne mooy iman islam ihsan mbaa nga ne tawhid fiq tasawuf ñetti bunt yooyu lay doon sammaytuhoo tudde naa ko tazawuda shubbaani yóbbuluk waxambaane ya ila tibaail maliki jëm ci topp buur ba ak dayyaani kadib fayaakoon fayaakoon mooy ab fayakat ki nga xam ne loo def rek mu fay la ko daa koy tudde tazawudu shubbaan waxambaane yi laa ko taalifal bëgg ñu jàng ko jëfe ko def ko yóbbal bu ba ñu dellu ci seen boroom mu dugal leen ci ajanaam joojee incha allah muqaddamatun li luñ jiital la maanaam lii mooy njëlbeenu téere bi yaa ma'shara shubbaani yéen mboole waxambaane yi in xiftum ndem ragal ngeen xajalan kersa faqaddimu na ngeen jiital taaxal lu man xam lu xalaa xamalin ci jëf kii jàng moo ñu bu gisee njàng xajalan wala xalaa amalin bu mu tax mu toppi bu mu tax mu soppi ab téeréem na xam ne loolu daa am lu ko waral rek waaye du tee niñ bind téere bi noonu la koy bàyyi ak mboolem yi mel noonu dafa jëkk dénkaane ne yéen mboolem waxambaane kat bu ngeen bañee rus ci àdduna ak alaxira da di fexe ba fexe ba xam lu baax bala ngeen a jublu ci jëf faaw rek na xam jiitu jëfe ga ndax boo bëggee jekki-jekki jëf te xamoo rek lu ci ëpp du sotti kon bu ngeen bañee rus tey ak ëllëg na ngeen jiital ak xamlu jàng ba xam door a jublu nag ci jëf li ci jublu rek mooy lépp looy bëgg a def rek na ko xam njëkk bala nga koo def ndax liy farata ci xam-xam mooy loo tool ci sa rek muy wàllu diine muy wàllu adduna nga xam ko xam la lislaam wax bala nga caadu ko loolu mooy farata ci xam-xam ne sax topp téere yi di ko jàng di wéy rek ba géeju ci moom bu ko ay benn benn defee soxla ñëw ci ñoom rek mu daal doy waaye nag kenn ko ne farata la ci moom lu mu ci ab dundam rek muy ci wàllu diine muy ci wàllu addunaam ndax diine ak adduna benn la ci lislaam lu mu dugg rek mu xam ko bu wér a njëkk faqat dimoo na ngeen jiital alxaqaida pas-pas ya as sunniyata ya ko jug sunna mu jarra daatin mbir mu ñiñu lu ñu rafleel xan firan walis ay dóor wooy mu deetin ak werante mene bu ngeen dee jàng dangeen ngeen di njëkkee tawxiid nga njëkk a jàng pas-pas bu sell boo xam ne mooy pas-pas ahlu na moo dëppoonteeg la yonante beeg i façon ci wàllu yàlla ak yonante lépp la aju ci lislaam gaa baax yi topp leen ci roy ci ngeen jàng pas-pas yooyee ba xam ko te jàppe noona muy seen pas-pasu lislaam ndax pas-pas bu sell boo xam ne amul dara ci caaxaan amul dara ci ay jeexi jaaxaa ki werante wa baxdaha nekk na ci seen gannaaw alfiqhu fiq wa de zeyni nekk na ci gannaaw yi la yaar xilmu tasawuf xam-xamu tasawuf al musili cheyni mi aji dindi ak ñaaw boo ko defee musili day dellu ci tasawuf yi boo ko defee al musilu cheyni mu dellu ci xilmu waaye max naa mi du soppi ko nee na bu ngeen jiitalee jàng tawxiid muy pas-pas ci lislaam ngeen cey teg jàng fiq fiq moo lay jàngal sharia maanaam li la sant noo koy defee ak la nga sañ ak la nga sañut yëpp rek fiq moo koy jàngale bu ngeen noppee ci yooyu yaar ku ne ngeen am ca ab yóbbal ngeen teg ci xam-xamu tasawuf tasawuf moo lay jàngal ni ngay sellale sa digganteeg sa borom ba sa bakkan mbaa saytaane mbaa adduna ba sa bànneex du la yóbbaale ba xañ la li nga bëgg ci sa borom ñetti xam-xam yi bu nekk na ngeen fexe ba am ci yóbbal wala budda mënta ñàkk bax daxaa ci seen gannaaw min alaatin ci ay jumtukaay lil bax si ngir gëstu fil xadis ci addis wal ayaati ak laayi alquran yi gannaaw bu ngeen jàngee te ba am ci yóbbal ku ci ne da ngeen jublu ci xam-xam yi nga xam ne ay jumtukaay lañ maanaam boo leen jàngee ba xam leen dañ lay dimbale bu baax a baax ci nga mën a géeju ci alquran ak addis te bu ñoom dong deesu leen jàng waaye dañuy jumtukaay yoo xam ne boo leen xamee dañ lay dimbale bu baax a baax ci nga gën a mën a géeju ci alquran ak addis kan nax wi ni ki naxwu wal xaroobi ak xaroob wal bayaani ak bayaan wal luxatil arabi ak langu arab yi wal mahaani ak mahaani xam-xamu naxu ak luxa moom moo gën a mën ci gëstu maanaam luxa mooy nga xam baat bi li tekk ci arab dëgg-dëgg ak naxu mooy grammaire bi moo lay jàng naxu moo lay jàngal nu ñu war a nase baat yi ak nu ñu war a tegalee te boo ko may dëgg dëgg ci ngay door mën a firi prix mu prix mu jub waaye li feeg mënoon naxawul bi daanaka prix ko prix mu leer mu jub day xaw a jafe soo boolee nag xam baat yi bu nekk lu muy tekki muy luxa nga boole ci xam ñi nose baat yi muy naxu nag gëstu dala yomb lool lool incha allah xaroob mooy xam-xam jàng mbirum way mbirum way moom itam xam-xam bu yaatu ndax ëpp ci làmmeñu arab dañ koo dëxañ ci seeni way nga xam ne sax mën a jàng seeni way day tax nga mën a firi lool alquran ak hadis almaani albayaan albadi mooy xulóomul balaaxa ñoom nag boo leen bu baax a baax ci ngay gën a ràññee ni alquran wuuteeg waxi mbindeef ak ni nga xam ne moom la wax yonent bi sallallahu wa alihi wa sallam kaw wax mindeef ya ca des fa saariho kon ngeen gawantu turan bole sen ila taxalumi jëm ci xamlu wa wajah ta ngeen jihaar ak wa jaahidoo ta ngeen jihaat ak annu fo ya bi tafahumi ci deg deglu kon ngeen gawantu rek taxé jang bu baax a baax bakkan nak mom day tayel te boko ko rek li nga bëgg doo kon ngeen seen bakkan ci jema deg xam bu wala tuwaxiroo te bu leen yeexe a taalluma xamlu ga ilaa kibarigum ba ci seenu mage fa zaaka loolee yaxari mu day xañe alxulaa kawe ndax fal moo tuddee aqrabu moo gën a jege wa addaha te moo gën a jombale wa am marru te moo gën a weex way atiitani dikk baxtatan ci bette wa maa xanhu te dir mu nekk ci moom ma farrun benn dawukaay mu ne nag bul wax mukk ne damay nekk bay mag door a jàng ndax bu boobaa lay am jot fii mu nekk nii ndaw laa awma jot ndax nee na xamoo ba xam da fi nekk bay magam déet boo fi nekkee bay mag it ba xam ak wéradi mbaa beneen gàllankoor dana la dab am déet te it nee na dee moom dafa làqu ni séenoo ko waaye mën na laa jege lool lool lool te bu xasee ñëw amul fenn fooy daw di ko fa làqu moom bu ñëwee lu ci ëpp day bette te bu ko see ñëw moom doo ko mën a daw jëm fenn kon nag waxtu nga tolloo ci jàng moom dalal di gaaw rek jàng bu baax a baax bañ ne soxla yi daa bari ba damay bàyyi bay mag ba amu yaatu yépp ëpp naa wax wa kullu man képp koo xam ne lam yata baadar gaawuntuwut fii sibaahu ca ndawam ga ila taxalumi jëm ci xamlu wa qaadahoo te womat ko xawaahu bànnee xam faqala an yanaala néewaanam am fii ci moom almatala ba càkkuteef la id ngir faataxoo raw na ko tey siiruhu ak yombalam waqta ci waxtu ndaw wa nee bi nga dee gone toll ci jàng fekki gaawuntuwoo jàng fi saasay saas xanaa topp sa bànneex rek dem bañ mag nag nga bëgg koo dabu koy boo tuut du tax nga jot la nga doon dabu ndax day fekk waxtoom la yombi woon dëgg-dëgg muy waxtu ndaw ga day fekk waxtu raw na kon gannaaw boo ko di dabu nag boo tuut dabu ga du sotti wante bi na ngeen yeewu fi anna diinallaahi ci naka diina yàlla ji ak aqsaamuhu ay xaajam jiimu ñett la bilas ci baax julu lant awaluha aj jëkk seen al mooy imaan wal islaam ak lislaam baxdahuma nekk na seen gannaaw ñoom ñaar al ihsaanu ihsaan laatanaa moo bu leen nelaw nee na na yeewu te ci ne diine buñ koy jàngale dañ koy xaaj ñetti xaaj te sax yonante bi ci boppam moo ko njëkk jàngalee noona ca ba jibril soppi ko mel ni nit ñëw di ko laaj al iman al islam al ihsan fa awalun aj yëkk yasihu dana wére bi tawxiid yi ci tawxiid ku njëkk ci ci mooy gëm moom na xam-xamu tawxiid moo la koy jàngal ci tawxiid ngay jàngee li ñuy gëmee ci lislaam ba am ci leerlu bu baax a baax wa taani bi bi tafaq yi nekk na ci fiq alxamidi kadi ku ñu sant al islam dañ koy fide wéy santaan yàlla ci kaw suuf moom nag fiq moo koy jàngale ndax fiq moo lay jàngal sharia liñ la digal noo koy defee ak lañ la tere nga xam ko mën koo bàyyi ndax xam fa nga waree bañ koo weesu yépp islam muy sharia moo koy jàngale ñu koy tuddee fiq wasihatu salisi wéruk aj ñetteel ja bit tasawuf fi nekk na ci tasawuf ku ñetteel ki mooy am ihsaan al ihsaan moom xam-xamu tasawuf moo koy jàngale tasawuf moo lay jàngal ñi ngay rafetali ba lépp looy def rek ak looy wax yàlla dong tax te nga sàmm ci teggin yi tax yàlla gërëm la fal jamhu boole yett yooyu waajibun aji war la bilaa tawaqufin ci lu taxaw taxawlu maanaam ci lu dul mu ñëndiku dara nee na kenn ku ne war taxaw ci boole yett yi ku ne nga am ci yóbbal bu baax a baax ka ànd ma tawxiid daanaka tawxiid siidal xaali ci mbiri mbir ruuxun ruu la li diinillaahi ñeel diine yàlla ji dil jalaali koy borom màgg nga wa gis mu xoote yaramam wa al mooy lislaam wal ihsaan te ihsaan libaasuhoo mooy koddaayam la ëllësi la nga xam ne yes daanu dana waaje bi ci moom daanaka boo dee seet nee buñ ne diine ñetti xaaj ñi la mën nga koo misaale jëmm ak ruuga ak koddaay la mu koddaayoo maanaam diine ci boppam boo ko defee ñetti xaaj ñi day mel ne kon al islam yàlla ci kaw suuf mooy jëmm ja ruuga nekk ca biir ba tax jëmm ji am solo mooy tawxiid ba bu ko defee nag ihsaan mooy koddaay la nga xam ne moom lay waaje xam nga jëmm nag bu ci ak nekkee mu waaj waaj taay rafet rafet day daal di mat sëkk sëkk waaw kon nag yett yi boo ko boole noonu lay demee day mel ne tawxiid mooy ruu mel ne fiq mooy yaram wa mel ne tasawuf baa nga lihsaan mooy kodaay la fa duunakum na ngeen jàpp nazman aw way xawaawu làq na usoolan ay cosaan min ci salaasati ci la yett tafuuxoo kon ngeen kawe al ji la maas ga ndegam leeral naa leen leen diina ñetti xaaj la wax leen xaaj yi ngeen dégg nag mu ne kon na ngeen jàpp ma taalifa leen ci téere boo xam ne dana jàngale ñetti xaaj yépp bu ci nekk ba nga mën caa am yóbbal kon jàppaleen ko muy téere bi tudd tasawudu shubaan moo leen jàngal yett yooyu nazamtuhu way naa ko ibaadatan ngir jaamu lil baari yi ñeel aji bind ji bi fatahi baabi sunnatil muxtaari ci ubbi buntu sunnas ñu tànn alay yàlla na nekk ci moom xayru salawaat ngeen ji dool yi teral wa salaamin ak dool yi wóolu wa aali ak ñoñam wa saxbi ak ay soxaabaam al ghurri ñe ay sang al kirami ñe di way tedd dama ko talif ngir jaamu ci sa borom fas ubbi buntu sunna ba ku bëgg jaar ci buntu sunna xamni buntu baangi ni nga man ci yaw yonent bi tudd nak motax mu ne yalla nako yalla dolli ngeen ci teranga ngeen ci jamm mok ay mbokam ak sahaba yu bax ya ma da li fek taxena al muridu talibi ba bittibahi amri murabbihi ci top digalul serigne tarbiyam bila nisaahin ci ludul xëccoo wa daama ak li sax na man ka nga xam ne lam yettabi topput mun xaritan di aju nosu fii silki iblis a ci fiilu iblis fiil mooy wëñ allasi iblis ma nga xam ne xad afrata ëppal na wala jéggi na dayo li nga xam ne taalibe buy topp ndigalul sëriñam te fekk sëriñ ba di sëriñ mat ab sëriñ li fekk taalibe boobu mi ngi am texe rek yalla yalla saxal salatu salam ci yonante bi ak gayam, batay kan nguuta top nak li fek moy and iblis iblis mu ñak solo momé yaqku te yaqule ku nguuta top rek digal yalla yonante bi ak serigne bu démé nonu kon ma ngay top iblis ku mel non li fek moy and iblis jëm ci keuru safan ba te lolu moy am ba faaw yalla yalla saxal salatu salam ci yonante bi ak mbokam ak sahaba al qismu xaaj bi al awalu bi aji jëkk min aqsaami diinil awali ci xaaji diine yàlla mi aji jëkk baabul xaqaayidi mooy buntu pas-pas ya aljaali bu bay aji ñoddee lil fawaayidi jëm ci njariñ ya dena xaaj bi jëkk baa ngi nii ndax diine ñetti xaaj lañ koy def xaaj bi jëkk baa ngi nii nag aju ci wàllu pas-pas muy wàllu tawxiid pas-pas nag mooy tax jariñu moo tax mu ne bi aji ñoddee jëme ca njariñ ya imaanukum seenu gëm an tu'minoo moo di ngeen gëm billaahi ci yàlla wa bil malaayikati ak ci malaaka ya jundillaahi ña di kuréelub yàlla ba wa bi jamihi kutbihi ak ci mboolem téeréem ya al ya di ñu wàccee wa yawmihi ak bisam ba al axiri bay aji mujj yow mi zalzalati kay bisub rëng-rëng yi ba mooy kay bisub tartar ba wa bi jamihi rusulihi ak ci mboolem yonenteem ya wa bil qadari ak ci dogal ba min xayrihi ci aw yiwam wa sharrihi ak ayam xay su sadara fu man di bàyyi ko li nag gëm moom ci lislaam am nag jàppandi lool daa am juróom benn yoo xam ne rek boo leen gëmee lépp dugg na dara génnut manees na koo teqale sax ci ay béréb ba mu ëpp juróom benn waaye juróom benn yi moom boo ko gëmee rek dana dugalaale yépp yépp yépp ba ci jëkk mooy yàlla ci boppam nga teg ci malaaka yi teg ci téer yi nga xam ne moom la yàlla wàcce woon ci ay yonanteem teg ci yonante nga xam ne ñoom yàlla wàcc ci ñoom téere ya teg ci bis penc mujj ab dogal dogal bu moo xam aw yiw la moo xam ay la lu mu ci man doon rek juróom-benn yi daal moom boo leen gëmee rek loolu mooy gëm ci lislaam dañ koy teqale nag wax ni ngay gëme yàlla wax ni ngay gëmee malaaka yi wax ni ngay gëmee téere yi wax ni ngay gëmee yonante yi wax ni ngay gëmee bis penc wax ni ngay gëmee ab dogal mu teqale kon faslun li ab dog la dog bi kon day jàngale ni ñu war a gëmee yàlla ci boppam imaanukum seenu gëm bi rabbikum ci seen boroom tasdiqun moo di ak dëggal bi ànnaxoo ci naka moom wujuduhu amam nga xaqiqun aji dëggu la ni ñi gëmee sunu boroom ci ni ko al imaamul ashari ak ñi ànd ak moom di teqalee te sëñ bi bokk ci ñooñu mooy daa am ñaar fukki melo yoo xam ne day melo yu mat nga gëm ne dafa sax ci wàllu yàlla mënta ñàkk seeni safaan nag di ñaar fukki melo yu manqué yoo xam ne ngay gëm ne benn du ca laal yàlla jomm na ci yàlla am nag loo xam ne mën naa am ci yàlla mën ñak ñàkk ci yàlla loolaa ci mujj yett yi boko ko yett yi boko ko muy ñaar fukki melo yi mënta ñak ci mom ak ñaar fukki melo yi nga xam da jomb ci mom ak la dagan ci mom nga xam mën naa mën yett yi boko ko rek moy doon ñi ngay gëmé sa borom lim tambalé nak moy wañi ñaar fukki ba ci ñëk moy nga gëm ne yalla ci bopum lu am la al wujudu moy melawu ñëk yi gëm ne yalla amna na bu wéré wéré du rek lu ñuy wax noonu te amut xakay ah, lu am am la bu wér a wér suma xajimun topp aji jiitu la laa bidaayata dit ab tàmbalikaay loxoo di ko ñeel wa zu baqaayin te boroomuk des la laa nihaayata kok dit ab yemukaay loxoo di ko ñeel gannaaw boo gëmee ne yàlla am na da nga cey gëm ne yàlla daliwul fenn amul fenn foo xam ne fa la dale muy ñaar ba ñetteel nag mooy nga gëm ne yàlla amul fenn fu muy yem te ba ñu ne yàlla jeex na amatut mu xaalifun te aji wutante laag li xalq yi ñal mbindeefam yi kooku may melaw ñeenteel gëm ne yàlla ci boppam moo sàkk lépp waaye nag wut ak dara dara ci lim sàkk waxaay mun tey aji taxaw bi nafsihi ci boppam taxaw ci boppam rek mooy doylu ci boppam kooku may melaw juróomeel da ngay gëm ne yàlla moo sàkk lépp waaye nag aajowul kenn mbaa lenn doylu na ci boppam sëkk lépp ko aajowoo képp ko aajo waaye moom ci boppam aajowul kenn mbaa leen kooku lu melul juróomeel wi wa te kenn la laa naa imun du aji nelaw wa kenn la jooju nag moom mott li juróom benn yi juróom yàlla kenn la rek kenn la ci jëmmam kenn la ci jëfam kenn la ci meloom rek muy juróom benn moom lay wax naa wala mu yëkkul nekkut saanin jenn aji ñaareel loxo di ko ñeel fii daal ci jëmm ja wa fi hali ak ci jëfam ya wa fi sifaat ak ci melo ya way sun borom jëmum ji mom rek moko am mi jenn jëm melo yi mel mom rek moko mel jëfitam mom rek ay jëf lu bokku mom rek jëfama bokku ta kenn kenn di jëf muy jëf ci wetam dedet manam mom lu bokku ta yalla rek jëfi yalla ci gatta kon gëm ni yalla dafa wéet ci jëm wéet ci melo wéet ci jëf mooy melo wa annahu ak naka mom yalla tajibu dana war waye moy dana sax rek qudratun katan la ho ñal ko kazaliki ni iradatun namel hilmun ab xam xam ho na ngeen wattu al maqasa japp kay ba suma hayatun top dundu suma samhun top deg basarun ak gis suma kalamun top wax kalat di jotna keru ay xalaat han walis xam ab deug deugam daa am juróom ñaari melo yoo xam ne moom la boole ñaari way yi muy melo yoo xam ne wu ci nekk faaw de sax ci jëmm te bu saxee ci jëmm ja faaw nga wooye ko loola te du mën a ñàkk mu ne xudratun kàttan aw melo la woo xam ne faaw mu nekk ci jëmm da ngay gëm ne yàlla amee na kàttan goo xam ne dara dara tëwu ko amul lum tële lépp la man iraadatu coobare mooy nga gëm ne yàlla amee na coobareem joo xam ne ci lay jëfee kenn du ko forcé dara du ko rëcc am dara du tombi rek am lu am rek coobareem la yàlla amee xam-xam ba nga xam ne moom bu daj kapp la bu mat sëkk boo xam ne lépp la xam te lu ne mu xamee ko nam doone ba te yàlla amee dund ga nga xam ne mooy yàlla ca moom amee dégg ga nga xam ne mooy yàlla ca moom ame gis ba yàlla ce moom ame wax nga yell ca moom tamit wax joo xam ne mbindeef mënta xam dëgg-dëgg waxinam moom borom bi kon juróom-ñaari melo yi muy kàttan gi ak coobare ji ak xam-xam bi ak dund ga ak dégg ga ak gis ga ak wax ga juróom-ñaar yi ku ci nekk day sax ci jëmm boo wàññee juróom-ñaar yi kon nga wàññiwaale jëmm jañ sax kon mu daal nekk fukk ak ñeent nga boole juróom benn ya ma waxan léegi nag mu daal nekk ñaar fukk motax mu naan wa kawnuhu ak nekkam nga al qadira te aji atan ja wal murida te aji nam ja wal halima te aji xam ja al hayya kay aji dundu wala yabida te du alku wa kawnuhu ak nekkam nga as di aji deg ja wal basira te aji gis ja wal mutakallima te aji wax ja rusiqtum yalna wërsegalef leen nuuran lef de wala na qudratun katan kum nek ci mom faaw nga xaadirun aji attan iraada suñ coobare kum nekk ci moom faaw ñu ne murid la aji namm la ilmun xam-xam kum nekk ci moom ñu wooye ko aalimun aji xam xayaatun dund kum nekk ci moom ñu wooye ko xayun aji dund samhun dégg ku ko amee ñu wooye ko samiyan aji dégg basara gis ku ko am ñu wooye ko basir aji gis kalaam ak mën a wax ku ko amee ñu wooye ko mutakallim xam ne kon juróom-ñaar juróom-ñaar boo ko boolee mi fukk ak ñeent nga boole juróom benn yaa njëkk wax nag muy ñaar fukki melo yooyu moo sax ci wàllu yàlla wa annahu ak naka moom yàlla tas taxil dana jomb xale ci moom addadaadu di sifaati safaani yile melo laatam yi loo bu leen jeng melo yi nga wax ba àggal nag melo yi mat lañu seeni safaan nag day melo yu manki jomb ci yàlla moom lay bëgg a wàññi benn benn min xadamin tàmbalee ci ñàkk xam nga ba nga ne yàlla lu am la muy alwujoodu kon yàlla ñàkk doon loo xam nañ koy waxee waaye ci dëgg-dëgg amut loolu jomb na su ma xuddoo sin topp sosu da nga ne woon wax waqat yi mun laa bidaayata laxoo da nga fenn fu mu dale kon yàlla sosu am fu mu doore jomb na wa fanaa in aku jeex da nga ne woon fi nek ba faaw di jeex mukk mukk kon nak bu dem ba yag mu jeex jomb na muy ñetti melo tamasulin ak ak mindeef da nga won mo sak lepp waye nuru wut ak dara ci lim sak kon nag mu ak dara ci lim sak jomb na su maftiqarihi top ak aajowam kana niki nun bata yalla yàlla jëm ci kenn ba len jomb na ci mom da nga ni won borom doyul la ci kenn mbaa lenn mooy la nga ne woon wa xaayibun bi nafsihi kon yàlla aajowoo kenn mbaa lenn jomm na ci moom